amaat nañ ko euh, lépp rek ñu jëm ci jàppale lislaam jàppale diine mu aju ci wàllu SMS yi waaye bi nag dafa am soppite boo xam ne mu am solo bu ci am moo nekk euh, dootoo nekkati naan yaa ngi yónnee SMS chaque jour chaque jour ñi dañ lay ñaan rek nga inscrire euh, ci numéro bi ñu wax 26 26 1 mais pour nga inscrire da ngay yónnee Ali Imran par SMS bu ko defee ñu jàpp que ne inscrire ba te noppi nga pour euh, may Aly Imran semaine bu jot juróom-benn fukki dërëm wala 300 francs ci tubaab bu ko defee dinañ la yónnee bés boo yónnee loolu mu yónnee la benn doigt wala benn xadisu benn xadis nga xam ni li si mën a euh, jàngee sa diine incha allah rabbi loolu daal mooy xew-xew bés bi nga xam ne indi nañ ko fii si association Aly Imran si njiitagu sax Aliou Sall pour bëgg lépp li nga xam ne projet la ci diine ci l'islam ñu mën ko taxawal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 inaa nasaluka xayra ma fi haasalam wa xayra ma baad wa naaudu bika min charri ma fi haasalam wa charri ma baad wa naaudu bika min adabin fi lqabri wa adabin fi naar mbokk yi Sud FM seen rajo ci waxtaani fajar yim leen di defal fajar jot waxtu wi dellu si ci kàttanu sunu borom tabaaraka wa taala ko defal si ngeen ci ànd ak seen mbokk Alioune Sall ginnaaw bañ seen te yàlla subhaanahu wa taala julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa ñaan jàmm ci réew mi ak réew yi ko wër jaajëfal alxaaji sëñ Mbàkke Sylla mi nekkoon ci jataay bi ñaanal ko tawfiix sutura ak teraanga ak poche def dara démb bi ñu yëkkati jataay bi ci temps ci dund jullit bi maa ngi tolloon ci ñetti temps yi nga xam ne moo composé dunduk nit ki ñetti temps yi bu ci nekk sunu borom wutal ko tur daaf quwa daaf temps bu njëkk bi mooy daaf deuxième temps bi mu tudde ko xuwa troisième temps bi mu tudde ko daaf daaf mooy néew doole xuwa mooy am doole daaf mooy néew doole kon soxna njinde boo ko seetee dafa mel ni ñaari daaf ñoo séq benn xuwa force bi nga xam ne moo nekk ci diggante bi daaf bii ak daaf bee ñoo ko séq dundu dama adama noonu rekk la ndeysaan bi nga mënul dara bi nga téléwul dara ak bi nga mënatul dara ñett ñëpp ci kër gi léeg-léeg léeg ñett ñëpp na ci kër gi mbaañu na ci quartier bi mooy bébé yaa ngi ci kër gi mooy daaf waxambaane yaa ngi ci kër gi ak jànq ji muy xuwa màggat yu ku mu doon ci kër ji muy daaf ndeysaan mbokk yi yal na jàmm yàlla nekk seen ak seen njaboot mu ñëw ci beneen tomb muy ñetteel bi mooy lislaam dafa am ay yëf yoo xam ne daf koy santaane ci pinc mi lu ci nekk boo ko xoolee gis ne dafay dëgëral importance su temps waaw waaw ndax yi lislaam farataal ci jullit yi ak teggin yi nga xam ne lislaam ko farataal ci jullit yi lu ci nekk day wane yitteeg am solo goo xam ne gii temps am na ko sole solo xaaj boo jël ci temps rek solo soo solo am te ku ci nekk boo ko xalaatee bu baax day yee sa conscience day yee sa yëg-yëg ci wane nekkoon kat ndekki àdduna sii ma nga xam ne ci nga nekk ah, jant bi fenk ka ñëw weer wi biddiw yi guddeeg bëccëg da nga xam ne kon yaa quelque chose waaw da xam ne kon yaa quelque chose waaw da xool buñ jëkkee jëkki ci fajar nga dégg ñu naan assalaatu xayru min an nawm ah ginnaaw xaya ala salaa ak xaya ala falaa su boobaa am na temps bu ñu soxla am na benn réunion mel na ndaje mu war a am ci kanam tuuti fii ak dix quinze nun ñëpp lañ ca woo xayya kaay leen kaay leen lañ wax ndaje moomu mbokk yi ki ko raté raté na lu rëy ndaje moomu moo raw tey bu président de la république Macky Sall yàlla na ko yàlla yokku wér woote woon ca euh, centre ba lañ tudde Abdou ca ca ca ca jam ñaajo bu fa woote woon ngir joxeb xaalis yaakaar naa ne tali bi dana embouteillage ñu ne président Macky ma nga jam ñaajo day joxeb xaalis fi ne nañ nañ dégg turu xaalis bi rek embouteillage tàmbalee am ci autoroute bi waaw li yàllay joxe ba tax mu ne asalaatu xayrun mina nawm maanaam noddkat bi wax ko la ca nekk moo gën fuuf nga xëy dem ñu jox la milliard nga ñëw waaye tabarkàlla ñiy wuy ji bëriwu lool ndax seytaane mooy fekk kii nelaw mu yeew ko noonu sapeur yi yeewe malaat waaw maanaam bu dara amee léeg-léeg yi di jël da gis ñu jël benn élastique yeew ci tànk yi am buñ korosi ci dënn bi ah, ci biir bi am buñ korosi ci dënn bi muy ñett noonu sapeur yi def waa jooju daal koy yenu noonu la seytaane def koy nelaw waaw day jël élastique ne sa tànk yi ràcc ne sa biir bi ràcc ne sa dënn bi ràcc waaw ànd ak nag di la mag magal bu dee jamonoy tàngoor mu lay ëf pour pour kilim bi ah, kilim eh, climat bi changé tuuti seytaanee koy def aleyhi salaatu salaam nee na boo ne bëreet boo ne bëreet li ci dënn bi tekkeeku na nga ne ket li ci biir bi tekkeeku na nga jàpp lépp tekkeeku nena moo tax koo gis muy julli ji fajar cawarte gi muy àndal tabarkalla day neex ngelaw liy upp ci fajar gi neex loolu nag ñëpp duñ ko am ndeysaan mukk boo laajee ñuy yar fas sax heure boobu ngelaw soos ci du upp fas yi boo ko sangee ba noppi tuuti ngay dox rek fas wi xalanko xalanko suuf taqal yaram yi suuf yëpp daal di jóg yëngal bopp bi yëngal yaram bi mooy lan mooy na la merci ci li nga ma defal laaj ko borom fas yi xam nañ ci dara <clears throat> kon heure boobu ki koy nelaw xamul li xew léeg-léeg ngis ko fanaan ci dara am pecc mbaa yeneen yum fanaan ba faat waxtu woowu bi ñu ne ko xaya ala salaa ñëwut biñ ne ko xaya al falaa ñëwut biñ ne ko assalaatu xaayim na nawm ñëwut ñu baamtuwaat ko ñëwut ñu ne ko nan julli xad xaamati salaatu ñu daal li xam daal di julli ana gaa li ñëwut kenn xamul nu mu toll que li ñu asalaatu xayru mina nawmi ji xamut waaw mooy li muy tekki mooy dem ñam dem jam ñaajo jëli xaalis dem ci jumaa ji julli ko gën ah maa la ko wax asalaatu xayrun mina nawm mbokk yi temps boobu ñu koy tardé ñu ngi tardé lu bari temps boobu ñi koy tardé ñu ngi tardé lu bari asalaatu xayrun mina mi sëriñ Mansour si borom daar ji bu ci ma saan toll ba firi rekk sa xol sedd di saan rahmatullahi alayhi wa <coughs> waaye mbokk yi nga daal dem ci ndaje moom nga wuy ji imaam jox ku nekk ñaari rakka ñaar rakka rakka bu ñu nekk am faatiha ku saar mu ñaanal leen ñaanu xunóot allahuma inna nastainuka waaw imaam ñaan leen ñaanu xunuut allahumma inna nastainuka yow yàlla maag ñii julli sama ginnaaw nastainuka yow rek lan bëgg a sukkandikoo ci suñ bisub tey bii wa nastaxfiruka ji la ñaan sutura wa nu'minu bika yow rek lan gëm wa natawakkalu alayka ci yow nuy wéeru loonu jox nu doyloo ko wa natawakkalu alayka wa naxnau laka wa nax la nun ñëpp yow lañ waax wut si la summi na suñuy dàll wa natruku man yakfuru ko ku la wedd bàyyi nan ko allahuma iyyaka na'budu wa laka nusalli yow la ñuy jaamu julli gi yow rekk yaa tax yow dong yaa nu ko mën a defloo jóg ci fajar gi xëppam ndox ñëw ci jàkk ji yow rekk yaa nu ko yaa ko sa yaa nu ko jaral ndeysaan allahu akbar narju rahmataka yaakaar si yërmande dong moo ñu dugal ci yi wa naxaafa adaabaka ak ragal sa mbugal inna adaabaka bil kaafirina mulhaq am nga ñu am nga ñoo mbugal te mooy kaafiroon amul ko nu baal ndax yow rekk lan am daldi rukkoo mbokk yi xoolal ki fekki ñaan googu ci fajar gi waaw astu caw xoolal ki fekki ñaan googu ci fajar gi fajar gu jot nga fekki ñaan googu allahu akbar temps boobu ëpp nay tardé mbokk yi moo gën moos kaay leen daje ñu jox leen xaalis lii moom dara wecciwu ko nan jàng julli ji fajar di fekke ñaan gi te kat ñaan gi tuuti la ci ndax faatiha ja moom beneen affaire la saar wam cay teg beneen affaire la ñaan gi rekk laa jël allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka wa nu'minu bika wa natawakkalu alayka wa naxnau laka wa naxla wa natruk man yakfuruka allahuma iyaaka nacbudu wa laka nusalli wa ilayka nascaa wa naxfid narju raxmatak wa naxaafu cadaabaka aljidd inna cadaabaka bilkaafirina mulxaq seet tet temps boobu ëpp nay tardé bu leen ko tardé ti buñ ko tardé ti mukk waaw <laughs> kenn mësu koo gis rek mbokk yi ñu pare ci temps boobu ñee xëy ndeysaan defi liggéey ñee xëy wuti liggéey waaw ñee xëy dem garam place ñee xëy ku ne xëy ci dara nu jékki-jékki rek kooka doon noddu naan assalaatu xayma ne naw mi rek ñu déggaat ko mu naan xaya ala salaa jël si leen xaya ala salaa del si leen xaya ala falaax del si leen xaya ala falaax si leen ndeysaan nga gis gaa yi yëlëb seen loxo ca lañ doon def daa del si am ñu continuer ñoom ca la ñuy def bañ a del si allahu akbar ñi del si waat xam nañ li xew ñi del si wut xamuñ li xew ñëpp war a dellu si dellu si leen ku ci ne yëlëb say loxo ca la nga doon def ña ci bureau ya tëj bureau ya ña doon paase teg feer ya ña doon fóot teg póot ma ña doon compter xaalis <laughs> teg compter xaalis ma ñëpp ne selaw dellu si waat ne ko dellu si nañ waaw waaw dellu si waaw imaam daal di jiite leen dox jox leen quatre doses ndeysaan ne leen mën ngeen a dellu kenn ku nekk dellu ci liggéeyam dellu ci liggéeyam dellu ci liggéeyam yàgg ñu xool rek seen déggati rek booru seize heures moyen wala ñoom seen yooyu rek nga dégg mu ne haya ala sala dellu si leen dellu si leen mu tax suñu benn ujaaj Abdourahman Faye da koy far nekk li nettali ujaaj bi dafa ñëw ma dina ñu nodd mu julli dellu siwaat ñu toog nu nodd mu dellu si julli siwaat ñu toog mu nodd baat ba mu wax moom ci tubaab ñëw ma ko wax ci micro bi waaye daal <laughs> nee na Bilal ba ti nous emmerde ma ne ëw waaw fekkee baat bi du saaga ngeen kii bu dee saaga na ngeen jéggal ma ndax déggumay tubaab <coughs> waaw waaye daal nun la ko waxee maanaam mere na ba doon noddu ne ko seen nodd daal di koy làkk tubaab seen julli yu bari yi waaw ah yàlla sala yàlla sala c'est quoi waaw <laughs> maries kay kenn musuta gis lii rek waaye ndeysaan sunu borom ni dellu si leen nu bàyyeeti place ya julli googu nag yonent bi nee na naafiq mënu koo def ci mbooloo ah mu ne maa la ko wax mook julli fajar nee na naafiq mën naa julli julli gu nekk ba mu des fajar ak tàkkusaan allahu akbar waaw ndax tàkkusaan jamono jooju fekk na nit ñi liggéey baa ngi tàmbalee gën a dox tàkkusaan gi jot na nit ñaa ngi jóge seen kër yi di jënd si li ñuy jënd si tabarkalla lépp di dox mu ne dellu si leen ku yàlla jëralut doo tëj sab kantin da ngay continuer sam njaay rek waaye am ñoo xam ne buñ ko déggee rek ña nga bokk ci rijaalun laa tulihim tijaratun wala bay'un an zikril an zikrillah ah gaa ñi wàcc agsi ci kër gi madam tàmbalee maye ndox ca ña am madam soxna si tàmbalee am maye ndox ca ña am soxna <laughs> rekk mu daal ni dellu leen dellu si leen haya ala salaa leen haya ala salaa dellu si leen am ko xam ne comme day door wàcc day wax na dama bëgg a sangoo jàpp julli ci kër gi am ko xam ne noonu la koy defee moom pour moom yoonam nekku ca programme am mooy comme dafay door wàcc day sangu jàpp julli añ waaw e way ndaw maanaam ñi jàpp ne ñoom seen bopp jamono jooju noonu lañ koy doxale fekk da nga waroon jàpp rek dem ci jàkk ji boo noppee looy def nga def ko ndax temps day weesu te bii du weesu mbokk ñu julli ci dellusi si taaj reer reer ba noppi bëgg lëwal mu ne xayaala salaa dellu dellusi leen dellu leen moo tax dañuy wax ne julli ku munt yàq sa programme defagoo ko waaw allasinum an salaatim saahuun julli daa war di yàq programme lu programme rëy rëy rëy ña fa nekk lu ñu rëy rëy rëy ci ay bët bu julli jotee bu programme bi yàqu rek adduna tukki na waaw alla sinum asalaatim saahun loolu lay tekki mooy ñoo xam ne julli mënta yàq seen programme waaye nan dox rek ku julli mënta yàq sa programme yi dee ngi ñëw moom bu ñëwee dana yàq programme moom ma wax la ko tey dee moom fokk mu yàq programme lim la fekke yow mi dee dana ko yàq lim fekke sa bokk mi munta kii dana ko yàq maa la ko wax de waaw waaw ceet tet tet yàlla na na koy gudd fan waaye fi ne <laughs> mu ngi noonu daal ma noppi li may bëgg wax xam ngeen ko xam naa ko dem ma noppi waaye <laughs> tubaarkàlla mu nga kon mu ne dellu si leen woonuñu ca fajar xayaala salaa kaay leen ci tisbaar mu ne dellu si leen tàkkusaan mu ne dellu si leen timis mu ne dellu si leen gee mu ne dellu si leen waa mbokk yi temps boobu noonu duñ ko xalaat maag yi ci temps lañ ko teg waaw waaw rekk tabarkàlla moo tax buy noot da nga dégg allahu akbar waaw waaye temps boobu mbokk yi ngay def suba tisbaar tàkkusaan timis gee benn bis suba tisbaar tàkkusaan timis gee benn bis yàgg moom ba mu yàgg rek nga jékki-jékki weer wi nga doon séen weer wa séenatoo ko nga jékki-jékki séen ko ca ko sow ba nga ne ko allahu akbar ñëwati nga allahu akbar ñëwati nga de alhamdulilahi li si xalaxook waaw nga ne ko maa ngi sant yàlla mi la bind ngay dem ak dikk rek wax xaddarakal manazil mu rëddal la ay bunt ak i pax yooyu jaar wa jaalaka ayatan lil alamina di san mooy boo séenee weer bi li ngay wax allahumma ahillahu alayna bil amni wal iman wassalaamati wal islaam wa tawfiqi lima tuhibu wa tarda xilaala xayrin wa rushd rabbi wa rabbuka allah xam naa dañ leen ko defal incha allah ci whatsapp yi wala yu ne demee mbaa sëñ Mbàkke defal leen ko mbokk yi weer daal yi am nga jékki-jékki ramadaan ma demoon daaw dellusiwaat nga ne ko dellusi nga ndeysaan bu fekkee la fi daaw fekk la fi ren ah santal yàlla xaaj Ibrahima Sakho nee na yàlla suturaal na la fi tabarkalla yor la fi dimbali la fi jël fi aw nit bàyyi la fi ramadaan muy temps bu am solo moom tam 30 jours wala 29 yoo xam ne li ci yàlla lay defal nit ci wàllu promotion fu dul foofu mënu faa am ndax bunti aljanna yi ñu ciy ubbi bunti sawar yi ñu tëj seetaan ma ñu jëng am koy woote naan ku bëgg lu baax ñëwal gaaw bala ñoo tëj bunt bi ña doon mooy yàlla jëggal leen ña du mooyu woon dellu si ña sàgganoon daa di jàmbaare ña ña ña ña màmmoon daa di dellu si amutoo amutoone frein daal di ne freiné la ña ña ña ñàkkoon sutura daal di suturlu tabarkalla ñu jàpp weer wi taxawe ko ñëpp góor góorgóorlu jërë ngeen jëf mbokk yi waxtaan wi jeexut dañoo am suñu ko war yëkkatee buñ dégloo vendredi samedi ak dimanche incha allah daañu ciy ñëw euh, gën koo continuer sunu mbokk yi xëy ci xibaar yaa ngi nii yor seen i këyit bëgg leen fi ñu fànc xibaar pa fi ñu fànc leen wolof ñaan leen yàlla ñoom ak yéen ak suñu technicien bi ak suñu sponsor yi yàlla yàlla defar seeni mbir defar sunuy mbir ci def ci sunuy poos dara wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Soutenons la Dara d'Oustaz Alun en envoyant Ali Imran au 26 Imran au Recevez chaque vendredi un hadith, un conseil ou bientôt des leçons de fiqh pour le coût de 300 francs. Soutenir la Dara parce que chaque geste compte.